bu njëkk ba nag ñett ci fukk ak juróomi nit yañ cay dañu leen daanoon réclusion criminelle à perpétuité maanaam ñu war a descarso seen giiru dundu euh, atte boobu leen la ñuy attewaat ni ki tey jii mbir mi nag ma nga xewee woon ci atum 2018 fukk ak ñeenti nit yu doon dagg bant foofu la ci àllu Bofa Bayot dañu leen faatoon euh, René Capin Bassène Omar Ampoy Bodian ak kii di César Atoute Badiate mandat d'arrêt international la ñu def jëmee ci ñoom fàttali ànd ak Ibrahima jàmme mbirum ba fa bayoot bi mu ngi xewoon juróom benn fan ci weeru janvier atum 2018 ginnaaw bi fukk ak ñeenti coupeur de bois bu ñu leen boomee fi nga xamante ne moom mooy euh, àll ba fa bayoot ci bot Saloum Ziguinchor fu soriwul dara frontière réewum Guinée Bissau loole nag taxoon ñu yóbbu mbir mi ci yoon tribunal bu Ziguinchor daa di woon prononcé woon ci première instance fukki fan ak ñett ci weeru juin 2022 li ñuy duppee réclusion à perpétuité ci ndoddu ñetti doomu aadama ci fukk ak euh, juróom yi ñu accusé ñaar ci ñoom ñu daal di leen daan six mois de prison avec sursis liñ leen tuumaloon moo di yore arme te amuñ ci autorisation yeneen fukki ñu daal di leen bàyyi ñu ñibbi seen kër gannaaw loolu avocat ñaari détenu yi di maître Ciré Clédor Ly daal di introduire li ñuy duppee demande de liberté provisoire ngir ñu bàyyandikoon kii di René Capain Bassène ak Omar Ampoy Bodian waaye cour d'appel bu chambre tribunal bu Ziguinchor dafa daal di rejeté demande boobule César Atoute Badiate moom mi nga xamante ni nag kenn gisu ko woon dañ ko jugé par contumace ko réclusion à perpétuité ci tribunal bu grande instance bu Ziguinchor wante depuis lors mandat d'arrêt international moo ngi ci ndoddam juróom-benn at ci ginnaaw événement yooye nag ñu war a ubbiwaat ci li ñuy duppee procès à appel dossier boobule àllarba bile ci cour d'appel bu Ziguinchor cour d'appel bu Ziguinchor foofu de sax la ñuy dem fekki fa lamin Ba lamin nu ngi lay nuyu. waaw euh, cour d'appel bu Ziguinchor tey lay ubbiwaat dossier euh, mbirum Boffa Bayotte ana fu ngeen ci toll. waaw euh, lu ne waxtu ci la ñuy natt ngir door li nga xam ne nag moo di procès bi baat Barthélémy ndax 9 lay doon. Euh, ci li nga xam nag moo di euh, première instance ba duñ seetlu mooy mbokk yi jóge nañ fu ne euh, ñëw fekk li nga xam nag moo di procès bi ba tax na kaanange gu mat sëkk lañ fa fekkoon kuy dugg ak génn ci li nga xam ne moo di tribunal bu grande tribunal cour d'appel bu Ziguinchor nga xam ne nag moo ngi nekk jamono ji ci centre ville diggante police ba ak Euh, bâtiment bi nga xam nag moo nekk inspecteur inspection des impôts et domaines dañu mën wax daal Barthélemy mooy kaaraange gi dafa fay fës loolu waaye nag askan wi nag euh, jamono ji mu ngay bàyyi xel bu baax baax li nga xam nag moo di procès boobee ndax dafay dëggal li nga xam ne moo nekkoon première instance wala daf koy euh, dàkkal ak li mën ci am fi léegi ay waxtu yu ñëw lépp dina leer waaye li mën ci am daal mooy askan wi bëgg na xam bu baax baax li nga xam nag moom moo woon mbir moom nga xam nag euh, Ibrahima Diallo moom koy fàttali sànq mm. mooy la nga xam ne xewoon na ci deux mille dix huit euh, boo fa te euh, donc ñu faatoon ci ay bakkan yu bëree bare ñi doon wut ay ay bant ci biir forêt cla forêt bu Bayot. jërëjëf Lamine Ba René Capin Bassène Oumar Ampouy Bodian César Atoute Badiate ñoom ñëpp dañ leen tudd ci dossier bi mandat dare international lañu def jëmee ci ñoom wàllum yoon ba léegi Lat Diop ak li mu gontoo demb gannaaw ba ko waa section de recherche bu gendarmerie dégloo ci ba noppi ci koppar gi ñu ne gis nañ ko ca moom mujj gi ñu bàyyi ko mu ñibbi nee na nag li ñu koy tuumaal amut taxul laale wut te ki ko tuumaal dana ko yónnee citation directe bu tontuwul ñoom ñaar ñëpp ñu jiitlante dem fa mbaxana doonee benn Aminata Ba. ginnaaw buñ ko auditionné ci lu toll ñaari waxtu ca brigade de recherche bu gendarmerie bu Kër ma Massar ki fi nekkoon ministre Lat Diop di responsable APR daal di publier ab vidéo ci réseau sociaux yi yéex daal di weddi accusation yi nga xamante ni moom lañ tekk ci ndoddam waaye itam daal di dalal xel ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom. di leen wax ni waa ji ñu wax ni dañ koo garder à vue Kër Massar ci coowal supposé milliard bu ma dénkoon nit di leen xamal ni maa ngi nii sama kër ak sama biir njaboot nekk ci. bu ñu sukkandiku ci moom bi mooy énième fois muy daal di dund ay tuuma yu ni mel. sos yu mel nii dugg sos nañ fi ne dama doon tukki ñu nangu sama passeport fekk boobu maa ngi ak sama njaboot di weer ñu woo ma wax ma ko. sos nañ fi ni damaa lekk budget ministère sport ci ñetti weer. sos yëpp nag. am na yeneen yuy ñëw ngeen préparé wu ngir nag daal di raxas sa deram ki fi nekkoon na jëwriñ ci wàllu tàggat yaram di xamle ni nag yónni na ab citation ki fi nekkoon njiital Guédiawaye FC mi nga xamante ni da ko tuumal ni dafa gardé wu lu tolloog benn milliard ci suñu koppar ci biir këram. ki wax wax ji nag yónnee naa ko citation directe ngir mu ñëw ci kanamu tribunal indi ay preuve ndax bu dul man sax wax ni man damay téye sama kër te bu soobee yàlla bu ñu demee tribunal dinañu xam wax ji lan moo ko wundu. ci fàttali ki fi nekkoon njiitu Guédiawaye FC mi nga xamante ni moo yëkkati bile tuuma élément yu brigade de recherche bu gendarmerie bu Kër ma saax a jot na koo déglu ni ki semaine bu ñu weesu Aminata Ba Kër ma Massar rajo Futurs Médias. Aminata Ba euh, jërëjëf ñi euh, gën gànneew Euh, juróom-ñaar fukk ci ay migrants li ci ëpp nag di ay sénégalais ña nga ñu téye ca euh, Tunisie euh, ñu ne nag ñu ngi ñu ci ëpp ci ñoom ñu ngi bàyyeekoo Thiaroye-sur-Mer Yène Bargny Saint-Louis Pikine Géejawaay Ginnaaw Raay ak yeneen yu ko demee bande armée ya leen nag xaalis la laaj te xaalis boobu français naan ko rançon ngir ñu mën leen a bàyyi loolaa tax maire bi ci boppam maireu Ginnaaw maire Thiaroye-sur-Mer di ci sàkku ndimbalu état bi El Mamadou Ndiaye lay wuyoo kàddu yi mu dénk Serigne Saliou Seck. waaw li ci am rek mooy euh, bi ñuy dugg ci weeru juillet bi si début bi famille yi dañu ñëwoon jaaxle lool set si ñi nga xamante ni mooy maire commune Thiaroye-sur-Mer par rapport ak situation bi situation bi nag lenn la mooy lu tolloo si soixante dix seen ay doom ñoo xam ne ñu ngi dëkk Bargny ñu ngi dëkk Yène ñu ngi dëkk Saint-Louis ñu ngi dëkk Pikine ak Thiaroye-sur-Mer am si fukk ak juróomi doom euh, wax ñu ne dañ leen jàpp fële nga xamante ni mooy Tunisie et grave nag mooy ñi leen jàpp dañ leen di oo di leen di laaj xaalis comme rançon boo xam ne dañ ko war a joxe pour ñu mën leen bàyyi boobaak léegi nag ñoom ñu ngi ciy dox ñun nag en tant que autorité administrative bi ñu jotee xibaar bi li ñu njëkk a def mooy ki nga xamante ne moom moo nekkal état si arrondissement bi yëgal nañ ko li nga xamante ne mooy xibaar bi ñu jot boobaak léegi nag yaakaar naa ne def na ab diir te it euh, gisuñ si avancement gisuñ si évolution euh, saisir nañu ñi nga xamante ni ñoom ñooy Croix-Rouge international pour que ñoom ñu dox si ay jéego saisir nañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy horizon sans frontière ñu dox si ay jéego mais li ñu mën a wax rek mooy que initiative yooyu yëpp baax na mais initiative bi nga xamante ni moo gën mooy bi nga xamante ni dafay jóge si état parce que nu ñu koy waxee rek doomu Sénégal ak condition bu mu mën di génnee ci réew mi li am solo mooy que ne fépp fu mu nekk état du Sénégal dafa am devoir dafa am obligation pour protéger ko tey suñu ay doom ñoo soxla ku leen wàllu ñuy waxtaan ak Horizon Sans Frontières ñu ne nañu def bataaxal boobu pour ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew bi àddu ci mbir mi jël ci ay mesures ba doomi Sénégal yooyu mën a ñibbisiwaat si jàmm. ay ñu wax ci euh, waxtaan gi ñu namm euh, wala boog waxtaanaat gi ñu namm ci contrat yi ñeel pétrole beeg gaz bi état nag dana dajale mboole majeur yi ci euh, taabal su ko defee ñu waxtaan ci waxtaane rawatina wàllum fiscalité am na ay entreprises yu nga xamante ni dañ leen mettre en ba fii moom euh, moo yëkkati li kàddu ci ab euh, atelier maanaam ndaje goo xamante ni euh, da ko doon participer wala boog da cee doon bokk ci atelier boobu ñu doon waxtaanee wàllum transparence ak redevabilité ñu teewlu ko kàddu yi mu dénk Mouhamed Sodio. li ma wax ci renégociation rek mooy ñu bëri dañoo yaakaar ne renégociation soo ko waxee dafa nekk lu rëy a rëy wala lu grave a grave a grave mais renégociation mooy am tous les jours ku nekk da koy xool sa bopp rek tey mën nga am contrat ak benn nit dem ba si yàgg nga ne sawaay man ñu waxante woon mënatuma yi wax naa ko sànq contrat yi nga ngi renégocier mi ngi renégocier ak Cosmos BP aussi mi beneen compagnie boo xamante ne ñoom ñoo ñu war a luyee seen i bateau donc yooyu yëpp c'est le processus normal de renégociation renégociation nag dafa am ay fànn yu bëri fànn yi moom mooy ñun nii ñu joxe contrat yi kat est-ce que na peuple sénégalais est aujourd'hui aujourd'hui ñun Sénégal suñu bàyyee contrat yi nii mu demee nii 18 millions de sénégalais est-ce que dinañ ci am dara donc su dee am naru ñu ci am dara mais bu boobaa ñu toogaat sur la table ne sëñ bi kat ni ñu waxante woon kaa ñu xoolaat ko parce que ñun ñii ñii ñu dénk nii muy sénégalais yi naru ñu ci am dara donc il faut que ñu renégocier ko yeneen yi ci am tamit moom mooy contrat yi daan nañ ko joxe bu njëkk ba dañ daan wax suñ nee contrat yi kat demee na nii demee na nii ñu tontu ñu ne ñu ne ah yéen gaz génnagul pétrole génnagul ngeen commencé wax te fekk jaay bi am na bu yàgg yàgg a yëpp Sénégal ci cee lekk dërëmu impôt donc yooyu yëpp keroog dégg ngeen président de la république wax ko dafa am ay renégociation yoo xamante ne da am tey jii ni am na compagnie yoo xamante ni ñu ngi en redressement fiscal ci ñooñu te redressement fiscal boobu ci renégociation yooyu la bokk ñun fi ñu jëm nii moom mooy Sénégal ñaata part la war a am ñaata la war a am ci pétrole am ak gaz mu nekkoon euh, Alioune Gueye directeur général u Petrosen euh, Petrosen Holding njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye tey lay bàyyeeko Ndakaaru wutali Paris moom nag dafay dem rek ngir participer ci benn sommet maanaam ndaje bu am solo ñuy waxtaanee wàllum tàggat yaram ak développement durable sommet boobu ëllëg lay doon ci alxemes gi àjjuma nag président dana participer ci cérémonie officielle Jeux olympiques 2024 yi ko fukki simili ak ñaar gannaaw juróom-ñetti waxtu. RFM rajo démb ba tey yéen a ngi koy dégg ci antenne bi ñuy njortu ne euh, suukar dana manqué laata gam laata màggal gi loolee nag directeur commerce intérieur àdduna ci nee na suukar du manqué te du mos a manqué euh, ndaxte dañ gis ne gaa euh, compagnie sucrière sénégalaise CSS euh, jeexal na stockam production am waaye ci lu dootul yàgg daañu ubbi li nga xamante ni moo di marché bi da di rek li am moo di période transitoire la marché bi daañu ko mën a approvisionner bu baax ci wàllum suukar ci màggal gi wala boog sax ci gàmmu gi. Cheikh Ahmadou Bamba Ndaw directeur commerce intérieur ñu teewlu ko ci. ñuy dalal xel nit ñi suukar manqué wut ci marché bi da fekk jamono ji CSS bi nga xam ne période bi moo doon production marché bi stockam na ko donc campagne am na donc bu campagne CSS jeexee na dañuy tijji a ci boo demee si bari dañ fa marché boobu defee Sénégal ñu dalal xel nit

yi ñu jëmmali muy màggal gee gàmmu yëpp jël nañ disposition yëpp ba allah su ko si na doy sëkk ci prix incha allah dara soppeeku ci donc dara laa xelal nit ñi rek ni leen situation de transition la bu ñu nekk en bu euh, temps que sucre importé bi di jël di jël carrément sa place au niveau du marché mooy waral nit ñi ñu yaakaar sensation ni nii su ko dafa manqué mais su ko manqué wala doy Cheikh Ahmadou Bamba Ndaw di directeur commerce intérieur démb ba tey ñu ngi du ñàkk gis ngeen ko ci euh, internet bi ay xibaar yuy fësal ne ministre de l' agriculture Mabouba Diagne dafa génnee ci poosu boppam lu toll ci quatre-vingt-cinq millions ngir jox ko techniciens yu agriculture yi maanaam ñi yëngatu ci wàllu mbay su ko defee grève wa ñu nekkee boobaak léegi ñu mun ko dakkal loolee nag Mor Diouf mi secrétaire général du syndicat des travailleurs et euh, technicien de l' agriculture nee na loolee amut ñu teewlu ko ci li am dëggantaan. docteur Mabouba di ministre de l'agriculture et de dafa jox quatre-vingt-cinq millions muy juróom ñett fukki million ak juróom mu jox ko syndicaliste yi yii ñuy wax euh, waa Sintas ñuy wax ni information boobu du dëgg ak yàq der la te teguwul ci lu leer euh, li ñu bëgg a xamal ni ñi mooy ñun en tant que syndicaliste kenn joxuñu quatre-vingt-cinq millions tey kenn joxuñu ko ëllëg beneen bi tamit suñu plateforme revendicative mu jëm ci suñu ñaxtu amul lenn luñ ci teg ci suuf wala lu ñuy laam-laamee li xew lan la ginnaaw bi nga xamante ni jox nañ convocation suñu mbokk yi di suñuy délégué nekk fii ci centre de formation horticole bu Cambérène ñun ak suñuy nawle yi nekk ci secteur primaire muy pêche ak élevage dañoo décidé woon soobu ci ab grève boo xamante ni alxamis bi grève bu benn fan lay doon buñ dul dàbbali bi loolu xewee ministre bi yëg ko talaata mu woo ñu dalal ñu waxtaan ak ñun jël ay mesures mesures yi bokk na ci muy mu jox directeur bi ndigal pour que plainte boobu ñu retiré ko ba mu ci jógee euh, ñu xamal ñu ni semaine bi tamit ñëpp gis nañ ko note bi génn que ni directeur boobu jëlee nañ ko ci postam kon nag loolu bu amee ñun ñuy décider lever mot d'ordre bu nga xamante ne li ko waraloon kat ay la yoon ministre bi indi na ci ay saafara ci biir waxtaan woowu nag ministre bi jël décision euh, ni comme dafa xam ne dañoo nekk ci coopérative boo xamante ni dañ koy wut pour jàppale travailleurs ak mutuelle de santé boo xamante ni euh, dañ koo bëgg a teg pour jàppale travailleurs yi ci seen wàllu faj mu jël nag ci gafagaam euh, ñaar fukki million ak juróom ni daf koy jàppale travailleurs yi nga xamante ni moo leen jaboote xaalis boobu nag nekkul ci poosu kenn mu ngi ci compte coopérative bi may leeral lépp lu jëm ci suñu revendicative amul lenn luñ ciy laam-laamee amul lenn loo xamante ni teg nañ ko ci suuf te bis buñ ci waree taxaw pour xeex ko dinañ ko xeex ba mu saf sap Mor Diouf secrétaire général syndicat gi ëmb kat ak it technicien yu agriculture maa ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar yi règlement intérieur bu assemblée nationale gi ñu war a yeesal su ko defee premier ministre Ousmane Sonko mën a ñëw def déclaration de politique générale am eh, ñi ci doon liggéey boobaak léegi nag tey ci àllarga gi la ñuy yóbbul président ba Amadou Mame Diop seen i conclusion Georges Dethié Diop premier ministre bi jege assemblée nationale àllarba gi le groupe de travail bi nga xamante ne moom lañ fi tegoon di jébal ki nga xamante ne moo di Amadou Mame Diop la mu tënk ca liggéeyam loole gannaaw ay ndaje yu bëri ña bokkoon ca groupe de travail boobee ñoo di njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Abdou Mbow bu yeewi ba Daffé groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement Lamine Thiam naka noonu itam ke fa teewaloon non inscrit yi di Sanu yëpp nag la ko waraloon moo di Ousmane Sonko dafa bañoon ne du def euh, déclaration de politique ci kanamu député yi ndax déclaration de politique générale bu premier ministre nekkatul woon ci règlement intérieur bu assemblée nationale bi Macky Sall dindee poste bu premier ministre boobu ba léegi nag règlement bi kenn yeesalaatu ko loolee taxoon Ousmane Sonko ne du dem ci kanamu assemblée nationale def fa déclaration de politique euh, générale am la mu naroon moo di dem ca mbedd ma def ko fa loolu indi woon coow nag ci ñi yëngu ci wàllu politique naka noonu waa société civile ñi fàttali woon Ousmane Sonko article cinquante cinq bu constitution président de la république Bassirou Diomaye fay nag moo mujjee fay taal bi seq waxtaan ak président assemblée nationale ngir ñu. yeesalaat règlement intérieur bu assemblée national Georges Déthié Diop ñu jëm ca Kaolack wax euh, sorti 42 euh, deuxième promotion bu ENSOA. 82 euh, sous-officiers juróom-ñett ci ñoom ñu ngi jogee ci ré ci réew yi ñu dendal euh, sergent Mor Wade moom mooy parrain wu 42e promotion boobule ministre des forces armées ki nga xamante ni moo jiite woon ndaje ma daal dina dellu soit ci menaces yi nga xamante ni daal ñoom la ñuy nemmeeku di di ay menaces yu bari te euh, wute ci loolu sax lay ñaax ñooñu di 42e prom génn ci 42e promotion boobule général Biram Diop ñu teewlu ko Fatou yéen ñi nga xam ne yéen a génne ci ñeent fukk ak ñaareelu promotion bu ENSOA nekk promotion sergent Mor Wade maa ngi leen di ñaax ne métier bi ngeen tànn bari na lool ay jafe-jafe yu ngeen ciy jànkoonteel tey itam nag faw nga dëgër dëgg nekk bañkat ngir man cee nekk. loolu moo tax ma leen di ñaax bu baax a baax ngeen bàyyi xel ne bés ni ki tey gàlloo ngeen ci seenum ndodd ay responsabilité yu rëy yoo xam ne jariñ seen réew te ngeen koy jaaral ci ay ordre ba ci komba moo koy tax a jug jamono ji ngeen di dugge ci langue gi nekk ay takk der dafa méngoog jamono joo xam ne ci vingt et unième siècle bi daanaka menaces yi bëri na lool loolu moo tax ba sun ay intervention daanaka mënatut a taggatémbe benn yoon loolu moo waral sax ba ñu initier transformation ak transformation bu ñuy jaarale ci format vingt virgule vingt cinq ngir nag bépp défi sécuritaire boo xam ne si sunum réew jëm na ci ñu daal di jaamaarloo ko moom ngeen nekk ay officier waaye jàpp leen ni lépp lu mu yitteewal di ngeen ko làmbool su ko defee ngeen mën a taxaw temm ba bay seen waar ci li nu leen di doye waaye itam noppi ngir jaamaarloo ak bépp jafe-jafe ngir andi ci ay saafara fi may daaneele nag moo di wax diggante ak suñu réew yi nga xam ni ñoo ñu gën a jege. nga xam ni saa su nekk ñu ñuy dénk seen formation initiale jëm ci seeni cadre militaire loolu itam ñu ngi koy rafetlu bu baax may wax ni rekk mboolem takk der yi nañ gën a booloo. Malal. Euh, Barthélémy. Diagne noo def. Euh, sant yow bu baax. maa ngi ëbbali de nelaw yee doyagul wala. <laughs> teel yeew bi rek mbay. <laughs> ayca ñu dem ci tàggat yaram Malal. nu dooree ko ak euh, Jeux olympiques yi war xew si France ajuma ji. Sénégal wax na nu démb nii ñii ñoo di nekk seeni porte drapeau muy Combé Seck ak Louis François Mendy. lu tax ñu tànn ñaar ñooña kii di Balla Dièye nekkoon fii champion d' Afrique yu bëri yoon ci taekwondo nekk directeur des sports ci wàllu Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ni ci kaddu. le choix de Louis François Mendy waaw choix bi jëm ci Louis François Mendy nag Louis François dafay rek kii njëkk qualifié ci li nga xamee ni moom moo di délégation sénégalaise bi ci euh, Jeux olympiques yi ñu jëm daanaka juin 2023 ci la qualifié ci noonu doon champion d'Afrique nekk recordman itam ci 110 mètres gagné li nga xamee ni moom moo di Jeux africains yi nekkoon itam finaliste ci championnat du monde yi ñu jóge kon mun naa ni compétition yu bëri daf ci fës loolu ci diggante 2023 ak 2024 kon nag day nekk choix boo xamee ni choix bu euh, amul benn werante la ci ki nga xam ni moom di Louis François Mendy. li jëm nag ci Combé Seck moom day nekk euh, athlète jigéen bi nga xam ne moom moo njëkk qualifié ci délégation bi nekk vice champion d'Afrique kon nag day mérité rek doon porte drapeau ci wàllum jigéen ñi ndax ci wàllum jigéen ñi am na ci ñu ci bari ñoo xam ne itam dañ leen invité ak fédération mondiale bi te moom booy xool dafa décroché li nga xam ne moom di qualification sur le terrain kon nag explication boobu moom la ñu mën a indi ci li nga xam athlétisme ñoom ñi nga xam ne kon ñooy doon porte drapeau ci Jeux olympiques yi ñu jëm. Louis François Mendy euh, de l'athlétisme. wax si wàllu euh, lu jëm si basketball ak douane si góor yi qualifié si finale coupe du Sénégal ndax dafa daan Duc 61 65 dem ba si demi-finale retour bi. si jigéen yi ASC ville de Dakar itam dina joué beneen final ci atub ren ji ndax ñoom dañu daal di jongante ak waa bopp ñu daal di leen kon euh, daan euh, génnee euh, waa bopp yi ci course qualification bi ci wàllu lamb coow laa nga ca diggante roi des arènes ak empereur Marie Thiandoum journaliste la ci wàllu Futurs Médias ji nekk ci tàggat yaram di xool ak topp lamb ji nee na lamb ji lenn lañ ci xam te ba ñu ko fi xamee ak léegi ëpp na ñaar fukki at mooy couronne roi des arènes kon coowal empereur ji lu coow li bëri bëri bëri dina dellu fa mu jóge woon Malick Thiandou empereur lu bees la lu Aziz créé rek bees la woon mais tey roi des arènes bi mooy titre bi nga xamante ni moom la ñëpp bëgg mooy titre bi nga xam ni di lu làmb moom la ñëpp gën nangu kon tey Modou Lo incontestablement mooy roi des arènes te Balla Gaye 2 fi mu nekk nii li mu bëgg sax mooy jëli titre roi des arènes boobu nga xam ne moom jëloon na ko jële woon ko ko hmm. noonu la ko bëgg a waat kon mel na ni titre roi des arènes bi moom moo ëpp cëslaay moo ëpp dëgër laay hmm. euh, li nga xam ne moo di empereur nga xam ne lu bees la lu Aziz def pour jox ampleur combat bi passe benn roi moom la CNG reconnaître mooy bi Manga 2 jëloon depuis Manga 2 jël ko maintenant CNG organiser waatu tournoi pour déterminer kan mooy roi des arènes hmm. bi Mohamed Ndao Tyson daanee Manga 2 ci la ñu ne nag kon Mohamed Ndao Tyson mooy roi des arènes ainsi de suite ba Balla Gaye jël ko fii ba tey jii Modou Lo yor ko donc titre roi boobu noonu la instauré woo te ñun journalistes yi ñun ñoo ko mettre en place. Mm. maintenant le titre d'empereur Aziz moom moo bëggoon jox contenu Balla Gaye ak Tapha Tine jox ko buzz alors titre empereur boobu dem na ba créer buzz boobu tey jii donc li nga xam ne moom la CNG war a def mooy def tournoi bu nga xam ne participation bi dañuy xool xëy na au prorata des victoires obtenues ci arène bi ñu ñu ñu teg tournoi bu mel noonu ku nga xam ne yow yaa ko jël ñu ne officiellement kii mooy roi des arènes mm. mais loolu dafa laaj xaalis bu bëree bëri mm. te amul xaalis boobu il faut mu am ku ko sponsoriser ba mu mën a tëgg tournoi bu toll noonu nga xam ne ay VIP rek ñoo ci nekk. tëgg combat ci biir euh, Futurs Médias ngir ñu mën a xam kan moo nar a doon roi des arènes fii ci kër gi Ablaye Diop Assane Gueye Babacar Fall ak Souleymane ñu waxtaanee lu wàllu football ngir jeexal euh, Barthélemy mhm. Ismaïla Sarr xaatim na juboo ak waa Crystal Palace dina fa euh, dem football yi jóge ca Marseille ga mu nekkoon contrat ba contrat ñeent ba juróomi at la moom nag nekkoon na Angleterre ci jamono ndax nekkoon na Watford fi mu toll nii nag la ñu bëgg mooy euh, waa Marseille ak équipe anglais bi daal di kon juboo ci koppar yi fi mu toll nii nag ñii ñi ngi laaj lu ëpp ñaar fukk ak juróom-ñaari millions ñeeni ñoom ña fukk ak juróom-ñaar la am <clears throat> ngir mu jóge foofu daal di rek euh, dem <laughs> football yi ca Angleterre ga nga xam ni xam na ko ngir wéyal kon mooy wane nii Marseille atum ren ji doomati benn Sénégalais ndax Ismaïla Sarr dafay dem euh, Iliman Ndiaye jóge na fa Papa Gueye itam dellu na Espagne. Mhm. ma ngoog jërëjëf Malal Diagne ci ñëw. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. xibaari aada yi ñu dalal Ana Rocha. leen di nuyu mbokk yi. at ak xaaj. gannaaw bi mu tàmbalee carrière solo am woykat bi di Mia Guissé mu ngi xamle ni dina amal concert bu njëkk euh, bitim réew mu tuddee ko le concert de la Teranga war ko amal juróom-ñaari fan ci weeru septembre gi ñu euh, dëgmal ca Casino de Paris ca France mu xamle li ni mel ci conférence de presse bi nga xam ne mu ngi ko doon amal démb euh, talaata ñu déglu ko. Sénégal lañu bëgg a yóbbu biir Paris Casino de Paris spectacle lañu wax ku xam Mia Guissé xam ko ci spectacle j'adore apporter du nouveau di ngeen gis Mia gisee si yeneen facette Mia Guissé bu taxaw di jouer instrument Mia Guissé ci beneen level incha allahu rabbi ñu ngi ci xalaat nañ ci liggéey nañ ci te xam nañ ni bu ñu ko yóbbee Casino de Paris le Sénégal sera très fier de Mia gisee incha allahu rabbi dañ ko xalaat togg ko liggéey ko ba mu ñor. Mia Guissé mu ngi ci waxtaay itam a génne ab album euh, fukki titre ak ñett lépp di ay titre yu bees mu dippee album boobee Mia éclosion waaye nag joxagul bis pour sorti album boobee. te cest diir lu bees tàkk la ñu indi ci album bi yeneen sonorité ak yeneen mbir daal dama war a dem Nigéria pour def benn featuring bu mag a mag xam naa kenn xaaru ko fi moom franchement waaw en tout cas featuring bu mag a mag a mag mag la yàq xam la ah donc kenn xaaru ko mi yaa gisee dina leen indi li nga xamante ne vraiment euh, day gën a day gën a tax ñu respecter vraiment musique sénégalaise incha allah nee na sorti album bi comme euh, dina méngale ak njeexiteelu tournée nationale bi nga xamante ne tàmbali na ko boobu léegi war ko jeexal fii ci euh, ndakaaru artiste bi daal di addu itam ci coow li nga xam ne juddu na gannaaw clipam bi di gauche droite donte ne am na lu ëpp fukki million de vues ci euh, YouTube. man dama jël sama décision ne dootuma tontoo ci kenn parce Ah, nit ñi loolu la ñuy xaar ci yow dañ lay pousser pour ngay wax te toll naa fi nga xamante ne vraiment léegi comme li may wax lu waay wax baax na lu waay def baax na man maa ngi sama liggéey maa ngi sama bopp ñi nga xamante ne ñoom laa toogal sama ay waajur xam nañ ma xam nañ may kan le vraiment du ma ci euh, attardé wu trop jël naa ay réformes ay résolution autant pour moi par rapport ak euh, sama sama nekkin ci réseau yi ak euh, nan laa war a doxalee sama sama carrière par rapport ak réseau yi. mbokk yi fii yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bii dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM. Soumari.com Touba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 ubbi l'observateur benn waay bu ñu naan Ibou Dieng moo yëkkati woon ay tuuma tekk ci kawam moom Lat Diop ngóor si Dieng dane woon bi fitna ji amee woon ci réew mi atum 2021 nit yu doon wax naan dañuy dem kër Lat Diop ngir taal ko Lat Diop da ko wolu ba mu ñëw mu yëkkati benn walis bu def benn milliard dénk ko ko ngir mu dencal ko ko bala ñuy ñëw di ko fekk këram l'observateur nañu bi tuuma yi jibee coow topp ci procureur bi dégg ko ci la autosasiro ba ba benn waxtu ginnaaw bi ci la ñu ko bàyyi moom Lat Diop mu dellu njóobeen ci la defee ab vidéo di ci weddi mboolem li ñu koy tuumal wax ne ay sos la li ñu koy waxal dara du ci dëgg te du ko bàyyi muy sedde noonu Ibou Dieng mi ko tuumal tuuma yi dana ko yónnee ab citation directe bu jaaraatee ca la mu waxoon mu dem ak moom ci yoon moom moomee teg tuuma ci derub Lat Diop l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne moom la gendarme yi njëkk auditionné Ibrahima palamaanoon ko fii 180 millions xëyee moom coow li ba duñu nittali minute par minute face à bi ni mu demee démb ci diggante Lat ak gendarme yu section recherche bu Kër Massar moom journal bi mi ngi ñuy xamal ne audition ba weesul waxtu vox populi nañu ginnaaw bi ko gendarme yu Kër Massar yi wooloo déglu ko ci coowal wali benn milliard bi ko ubbi jong di waxal ca ñu ko libéré Lat nag nee moom góor pire la ab deram kenn du ko bokk bureau parlement bi nee nañu amuñu lu leen neex ci Guy Marius Sagna ndax nee nañu waaji du yemale ay waxam dafay ëppal ci waxam lu ko neex lay wax Walf Quotidien nañu bureau parlement bu CEDEAO bi ànd ñu ci doxalinu Guy Marius Sagna wax ju ëpp ju mu nekkee ca parlement ba loolee la ñuy ak a jébaane parlement beneen mu di bu réew mi assemblée nationale soleil nañu groupe de travail bi doon daje ak doon waxtaan ci nan la def ba di fi coppite yi war a am ministre assemblée di Amadou Mame Diop tribune ci ne premier ministre Ousmane Sonko mu ngay gën di jege assemblée nationale ngir dem defi ji déclaration politique générale am Sud Quotidien bind ne mbir yi naruta yàggee ci assemblée assemblée nationale ma ngay accélérer la ngir ñu réactualiser règlement intérieur yu ndawi réew mi sur soit di ko dëggal ba di ñu xamal ne groupe de travail bi ñu santoon ngir ñu liggéey ci la tënkee ci seen Moustapha Diakhaté ma ngi fay wax ne waa Pastef kàcc nañu askanu Sénégal ñetti kàcc yu tooy xepp mu ne kàcc ba ca njëkk mooy projet bi ñuy gëmloo askan wi projet bi kàcc kese la dara ci amul ñaareelu kàcc bi mu ne mooy népotisme gi ñu doon wax naan dafa am ci réew mi te ñoom bu ñu faloo dinañ ko fi jëlee looleet kàcc kese la ñetteelu kàcc gi waa Pastef kàcc askanu Sénégal Moustapha Diakhaté nee na mi ngi jëm ci candidature Diomaye Faye bi ndax booy seet bay seet Diomaye prêt noo la Moustapha Diakhaté dolli ci ne a doy waar mooy Ousmane Sonko ak Diomaye dañoo jàpp ci seen bopp ne ay inspecteur impôt ak domaine lañu ba léegi léegi nag ñu dem ci journal Les Échos mi xëy dellu si ak ñun ci mbir mu doy te tiis wi ñu yeewoo démb ca caaruy géej ubbil yéenekaay bi ñetti xale ñaar yu góor ak benn bu jigéen toolu ci ñeenti at ak juróomi at ñoo réeroon seeni mbokk ñu leen di wër 24 heures ginnaaw bi ci lañu fekk seeni néew ci benn wata bu yàqu sumari.com Touba Darou Salam Caro Prestige ak association bi lëkkalee assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yéen itam jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun xibaar yi fii lañ ci yem dafa pàttali la xewoon ca àllu Bofa Bayot nekk ca Casamance procès en appel bi tey la ñu koy ubbi wat euh, tey lañu koy ubbi ci àtte bu njëkk ba nag euh, ñett ci ji fukk ak juróomi nit yi ñu ciy tuumaal réclusion criminelle la ñu leen daanoon maanaam ñu tëdd kaso li des ci seen dund René Capin Bassène Omar Ampoy Bodian ak César Atoute Badiate mandat dare international la ñu def jëmee ci ñoom Lat Diop ak li mu gontoo démb gannaaw ba ko waa section de recherche bu gendarmerie dégloo ba noppi ci koppar gi ñu ne gis nañ ko ca moom mu gi ñu bàyyi ko mu ñibbi këram nee na li ñu koy tuumaal amut taxul laalewut te ki ko tuumaal dana ko yónnee yónnee na ko citation direct bu tontoo xayrun bu tontuwul nag ñu jiitlante ñoom ñaar dem fa mbaxana doonee benn euh, gën gànneew juróom-ñaar fukki euh, ci ay migrants ci li ëpp nag di ay sénégalais ña nga ñu téye otage ca Tunisie bande armée ya leen téye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 association des assureurs du Sénégal maanaam kuréel gi ëmb kulli assureur nekk fii ci Sénégal tàmbali na